SBM Info TV. asalaamaaleykum monde entier ah, diaspora bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bëggee ñëpp waa di métti lu nag li li xew quoi ñun ñu ngi koy métti lu baax a baax parce que ñun amuñu lu dul jeunesse bi rek lañu am tey gis nañ ay nit ñëw pakk ay nit. tey di leen jox xaalis pour ñu génn jàkkaarloo jeunesse bi pour rayanteeg ñoom ku bëgg a jàkkanti jàpp jàkkaarloo jeunesse bi rayanteeg moom ñun ngay rayanteeg te ñun pare nañ pour ànd ak jeunesse bi pour ñu bëgg a néewal doon jeunesse baañ ko teg ñun doon rek jeunesse bi ñun doomu ñun doomu dëkk bi lañ dañ bàyyi mbëri ñuy sàkkatoo mbëri ñuy sàkkatoo dañ ko bàyyi ñun coowuñu coowaalewuñu jeunesse bi dañuy topp topp ñu keneen topp ñu benn doomu aadama bu dul jeunesse bi parce que man jeunesse bi sama rakk mi ngi si sama mbokk mi ngi si sama deret mi ngi si sama famille mi ngi si yaa ngi gis kon mën am képp kuy kuy toroxal sama famille yaa ngi gis voilà kuy dem sa coow ñu doa leen bé ki dinañoo capable nit dinañoo capable mais xam nga rek yar moo baax si doomu aadama mais nag gars yi bàyyi li gars yi génn nii di wax mën nañ ko de ay fi taal pono yu def nii man suba suma bëggee taal pono damay taal pono ma xool kan mooy ñëw jéem a def ay business yi nii kenn du def business parce que xamante nañ suñu biir ñun ñëpp wax jee fi nekk rek internet bi mais dafa am loo xamante ni méttiwul ñun ñi di wax ak ñi wax ñëpp xamante nañ ku si nekk xam nga jàmbaar fakk tër bi c'est que xam nga lan mooy problème bi dafa am loo xamante ni waroo jaay sa ngor ndax xaalis waroo jaay sa ngor ndax dara lii moo tax mbër kenn joxu ko cër mbër kenn joxu ko cër léegi yow da ngay ñëw sax sponsor nga bëgg ko sax duñ jox cër mbër nga ñëw bëgg tuddee kenn làmb sax duñ duñ jox cee mbër mhm. mbër moo war a bàyyi buñ ko def loo ko lenn mu def ko su bëggee ñëwee mbër yëfu dof la ñi ngeen ah. na mu du tax nga talpno wala nga ñëw fay ah, sama pono ñun jeunesse bi champion yi ñu pakk yëpp ñun loolu pakkuñu champion yi ay wecce lañ leen jox ñu taxaw bëgg a jàpp ko def